abonnez-vous à la chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen FTTV Sénégal qui dit « Cheikh Ndiaye di abus constitutionnel les sept sages conseil constitutionnel di député PDSI, yi ne ba Karim Mesawad, Wade a été ci kawam corruption. maanaam dañ koo geroon kookee di juge Cheikh Ndiaye di ab juge constitutionnel la bokk ci sept sages yi daal dinay porter plainte député PDS yooyee ndax ne ñooñee dañ koo tiiñal la dañoo daal di yàq deram dañoo amal ci kawam liñ dippee diffamation ci réew mi di Sénégal ne li mel moom moo sabab mu daal di dugal ab plainte